maanaam ñëpp la ñuy tàmbali tey en tout cas fii ci ginnaaw raay sud parce que njëlbeen dañu yaakaaroon ni ñu nekk ñu ngi tànn ñi xëy na temps du ñu mën a permettre ñu tànn leen à temps moo tax ñu doon wax dañuy commencer d'abord par RNU waaye yàlla dafa def commission yëpp yi nga xam ne les commissions de sous euh, les sous commissions de yi nekk ci quartier yi wala nekk ci village yi suñu borom dafa def ñoom ñi pare liggéey bi hmm? te nu mu gën gaaw dañ ko pare

4 point de 4 points de distribution au niveau de Guinaray Sud donc d'ici une dizaine de jours Inch'Allah allah rabi Sud aura terminé donc son quota euh, de de bénéficiaires et tous les ménages recevront donc leur kit alimentaire. nous avons ñun luñ doon ragal ci jëkk lu doon bi parce que nous bi wax nañ ko ñaari fànn bu ci mooy yoon yi nekk ci registre national unique kooku xam nañ ko jox na leen ko ñu caytu ko lu ci yoon ay doublon mu doon ñu ci bindu ñaari yoon ñu dindi ko lu ci réer ñu dindi ko lu ci nekkul ñu raxas ko ba mu set wecc loolu waa ginnaaw raay cité def nañ ko ba mat sëkk beneen fànn bi mu doon tànn ñi nga xam ni ñoo ko yelloon tànneef bi rafet na liggéey na liggéey bu rafet parce que tooguñu benn yoon ba dégg ni amna ay jafé jafé wala mbir mi jaarul yoon ñu ko seq sous comité de ciblage ñëpp nekk ci askan gépp nekk ci citoyens yi nekk ci chef de euh, madame les organisations communautaires de base nekk ci société civile nekk ci opposition nekk ci ñepp nekk ci ñu bok and nekk ben tànn ñu nga xamni ñoko ñoo tay ji nak moo doon jour bu jëkk ci joxe te gis nañ ni maanaam joxe bi mu ngi wa mi ngi tegu ci yoon lu ñu gis jafe-jafe yi nga xam ni feebar bi indi ñu ni kat il faut ni ñu ñi di toog toogin boo xam ni da nga sori sa moroom gis nañu fii ci centre bi ñuy joxe nit ñi respecté nañ ko